Amis de Sport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de vous du like, merci de vous abonné, merci également de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé gars, chaque fois de partager des informations. Boxe Sénégalais, fait pour les montiner, 14 régions du Sénégal, à Nouveau World Cup, nous l'avons déjà Il est sommes également sur l'hôpital et sécurité du février, nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire aussi erreur judiciaire, nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de la des de nous sommes en train nous faire des choses, nous sommes en train de faire des choses, on avance ensemble dans la magie de Sport TV, l'actualité en continu. actualité bi ñu fas yéene waxtaan yi nga xam ne moo jëm ci ballon d'or européen tey lañ koy defee en 18 heures lay doon ah, fii ak ci kanam incha allah rabi mais d' li nga xam ne nag mooy top ñoo nar a nekk ci ballon d'or bi la ñu fas yéene waxtaanee ak également ñi nga xam ne bokk nañ aussi ñi nga xam ne à saison bii di nekk nii bu am nañ seen chance daal di koy gagné mais avant ki nga xam ne nag mooy donc kii di Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic day arrêté carrière am ni nak lolou la ñëpp di euh, xaar Zlatan Ibrahimovic mi nga xamné jaar na fa nga xamné moy Ajax Juventus Inter Barça jaar Milan jaar Manchester jaar également Paris Saint-Germain entre autres comme club nek ci légende bo xamné gay actuellement ah, c'est l'un des meilleurs attaquants aussi du monde Zlatan Ibrahimovic ki nga xamné ne également moy Corentin Tolisso gannaaw bi mu blessé mom nak def na ab bataaxal jagleel ko euh, supporter yi ne nag ah, beneen yoon a ngi nii mu blessé wat mais met na lol lol mais dina mës def lepp lu mën rek pour daal di def euh, mbëgg plutôt daal di a ñëwaat wirak ak ndax mo objectif mo nekkon dem ci coupe du monde ba pendant ce temps aussi ñi nga xam nak moy ñi di joueurs yi nga xam ne ñoo ëpp li nga xam nak ñoy def ay passe clé euh, ki nga xam nak moy donc Lionel Messi 278 le Müller 222 Kroos 292 passe clé par rapport li nga xam nak moy donc c'est i performance meilleure défense de Premier League nak Newcastle mo nekk ci kaw topp ci Arsenal Chelsea Tottenham Manchester City Brighton Everton West Ham donc gis nga Chelsea bu Koulibaly à la troisième position Ben Burek, rek la encaissé de plus que ñi xam Newcastle ak Manchester euh, City entre autres. Arsenal également comme on dit 9 sur 10 parce qu'Arsenal Arsenal eu moo meilleure euh, saison en 10 matchs Ils ont 9 matchs yoo xam des résultats yu positifs euh, lañ ci am tax mu meilleure saison de toute l'histoire de. Arsenal et que en Premier League ñi am euh, li nga donc 9 euh, points positifs plutôt 9 matchs positifs sur 10 en début de saison d'habitude ñoom que champion prime League ngeen gis également hein, donc ko présenter 8 Simons 10 matchs 8 buts 3 passes décisives actuellement c'est le deuxième meilleur buteur fa nga donc Hollande hein, mon équipe bam gannaaw bi nga xam Gakpo daal euh, but qui aussi dit Antoine Griezmann 100 centième réalisation célébrée du côté donc de la Liga l'attaquant français de l'Atlético de Madrid mi nga xamni aussi hein ah, mom nee mi ngi doon regretté Atlético dem ci Barça euh, Christopher Nkunku hein représentant aussi de la France du Ballon d'Or bi ñi ñoy nominé yi nga xamni gaay japp nañ ñoy grandissime favori pour Ballon d'Or bi ngeen gis également ah, tous les grands noms du football Sadio Kaiser magnifique Mané aussi Karim Benzema Benzema ñom ñëpp ñu ngi 25 positions yi nak ñi ñoo nek ci 25 position yi par rapport ak donc ballon d'or bi ngeen gis Rudiger hein, Nkunku Kimmich Mike Maignan ak Darwin euh, Nunes donc nous, euh, bu ñu xol ci classement bi ñom ñep ay execo lañ parce que nous nekk ci à la 25e euh, position mais aussi dem hein, ci li nga xam moy 25e 28e position mi ngi ni aussi hein donc ki di Harry Kane e Bernardo 22e Phil Foden ak Trent Alexander-Arnold 22e 23e hein, également qui amène moi Joao Cancelo et qui dit que Cristiano Ronaldo 20e pour la première fois gars depuis 2006 Cristiano Ronaldo euh, n'est pas top 10 ballon d'or européen et de même que ki nga xam donc Lionel Messi la Pulga moom nga xam bokul ci li nga xam moy tableau bi lolu yag na lo xam ne gëjoon na am mu daal am ñom ñaar c'est presque 16 ans de règne ñom ñaar 16 ans de règne dans le haut niveau et aussi pour le titre de ballon d'or amul lu ñu marqué wul sen époque Cristiano Ronaldo la dernière fois bi nga xam na gars bokul ci li nga xam moy top 10 bi ça c'était en 2005 mu nekkoon 20e tay mu ñëwaat encore nekkaat ko donc CR7 et la longévité est là hein. donc la longévité il mi mis 16 ans yo xamné ne gars yi ah, ci top niveau nga nek yow ak sa naatango di Lionel Messi c'est à saluer et à respecter mais également même bu bokk ci top 10 bi aussi je pense que un véritable hein respect pour qui nga xam Sébastien Haller nga xamné actuellement nak ah dafa am li nga xamné moy cancer cancer ah, du testicule la nek fi ni ne nii du ko daal di eh, ñu koy ñaanal wër ak jàmm mom sax tay bokk na ci eh, ñi nga xamné moy invité Ballon d'Or il sera présent Sébastien Haller ngeen gis ko ni l'Ivoirien le joueur de l'Ajax mi nga xamné dañ ko transféré fa nga xamné moy donc ci Borussia Dortmund mo doon nek nak sen attaquant phare mais malheureusement nak li nga xamné rek suñu borom dab ko di ko ñaanal wér ak jàmm suñu borom également musul ñu ñun ñëpp kii aussi di Riyad Mahrez fierté aussi hein doomu Afrique la nekk ci li nga xam ne nag moom mooy donc douzième position bi l'Algérien de Manchester City un excellent euh, joueur hein donc de couloir kii di euh, Riyad Mahrez hein bokk donc jël euh, douzième place bi de ballon d'or européen Hudminson aussi pour moi, c'est le joueur le plus sous côté de l'histoire du football mondial donc gain bi gars yi ko dañ ko quoi c'est un excellent joueur Pour nous, woon ah, sud-coréen et tout gars Wadi, Ken, ji waxam euh, qui moy donc heung Karim Benzema Thibaut Courtois Kevin De Bruyne Erling Bro, Alon, Robert Lewandowski Sadio Kaiser Magnifique Manel, Kylian Mbappé Luka Modric Mohamed Salah Vinicius Junior li moy top 10 bi nga xamné Ballon d'Or bi ñi 10 premiers yi maintenant classement bi lenn nit ñi de Wurne, ne mooy Karim Benzema Benzema moy Ballon d'Or mais le reste qui xamuko ki nga donc Kylian Mbappé il est présent mais du yéeg ci euh, podium bi manam du bok ci 3 premier euh, selon les informations yi nga xam ne gars qui euh, également de Vinicius Junior il peut être à la troisième position ou à la quatrième position mais moi aussi il a fait une saison exceptionnelle le Brésilien futur grand joueur hein, futur grand également patron de l'équipe de la Sao bu ñoom Neymar jeexalee Vinicius moom n'est que patron en tout cas lui aussi il a fait une saison daaw exceptionnelle avec son acolyte ñu koy avec ak ak coéquipier bi nga xam ne Karim Benzegol. Benzema donc nous nga le Real Madrid très bien représenté ak aussi Thibaut Courtois bi nga aussi beaucoup de ci 10 que aussi de qui Robert Lewandowski mi nga gagné waat soulier d'or meilleur buteur européen donc qui a Robert Lewandowski et nak moko ko a jël mais malheureusement ah jëlu ko ñu annulé ko bu bi si lañ ko jox donc Robert Lewandowski aussi sera présent de même que Erling Braut et qui dit donc Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne aussi daw def na Ligue des champions bu exceptionnel Mohamed bokku trois premiers ils sont euh, candidats qui euh, dit donc euh, Erling Braut il est présent dans le top 10 Mohamed aussi cette année il est ñu koy gis top mais que dire de ki nga xam ne mooy bëggul mom yapp lay l'enfant de Bambali le meilleur joueur africain, le meilleur joueur du monde pour Man, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football et également du Sénégal Sadio Kay Zamani Mané est dans le top 10 Sadio Mané bi nga xam nag éloge mi Sadio Mané et on espère que ce sera le cas Guys, c'était le petit point que je voulais faire avant après nous dem ci consécration ballon d'or et en espérant que Sadio Mané sera très bien classé Je vous di like à top 10 bi jaa